loolu yëpp dafa am benn trame boo xamante ne moom la suivre après les indépendances bi ñu demee dugg ci d' abord choc exogène yi nga xamante ne moom moo am ci àdduna bi muy ay wàll ay crise mais également euh, euh, maral bi bi maral bi ñëwee soo xoolee dafa tax ba politique économique bu Sénégal dafa changé et peut-être foofu la institution comme ay euh, FMI ay banque mondiale ci lañ ñëw ne yéen kat seen économie dafa am problème léegi ñun di lañ leen accompagner jox leen solution pour ngeen génn ci mais dafa mel ni biñ ñu dugalee ci loolu ba léegi ci benn engrenage lañ lañ ñu dugal boo xamante ne génnuñ ci et certainement li muy wax ki nga xamante ne moom euh, faj wala boog pharmacie industrie pharmaceutique la yor mhm. mais mu éradiquer mali maladie yi arrangé wu ko parce que après dafay disparaître mhm. xëy na loolu mooy engrenage bi nga xamante ne moom lañ ñu dugal ba nga xamante ne ba léegi ñi ngi nekk ci jafe-jafe parce que société quand même aujourd'hui lépp lu ñuy wax ci wàllu économie dañuy wax on doit aller vers une industrialisation mais soo seetloo jamono jooju mais amoon na un tissu industriel assez épais pratiquement ci région yep, wala bok soko defone xaron euh, le Sénégal par ay zone zone yep amone na ay industrie am création de valeur yo xamante mi ngi don, mi ngi don jappalé économie nationale mm. mais mais lima ma moy effectivement mom dafa am lu mu wax lo xamante c'est vrai que c'est une particularité de, de nos économies moy mm. économie domestique moy économie informelle bobu nga xamante pour l'essentiel moom mooy euh, nourrir ñun suñu économie mais xam nga gouvernement yi ñom suñu ñëwé problème bi ñi njëkk am moy fan lañ mën jëlee so sétlo euh ñi biñ toogee nga xamante ñom c'est des fiscalistes mais ñi leen jitu également je crois que ci jamonoy Abdou Diouf bëggoon nañ créer un ministère de du secteur informel je crois que ça ne s'était pas fait mais Abdoulaye Wad sax xawna risqué wu dugg ci mais loolu yëpp liñ ci jëm moy pour man ñaar yëf captation euh, fiscalité mais également Euh, liñ mën a wax euh, épargne interne nationale parce que loolu tamit dafa manqué mi ngi koy wax euh, maintenant dama jàpp ni xam nga wax naa ko fii plusieurs fois suñu problème ñun ci suñu gouvernance publique yi mooy économistes yi dëgg-dëgg joxuñ leen rôle bi nga xamante ne moom mooy seen rôle on a plus des financier juristes yoo xamante ne ñoom ñooy inspiré te ñooñu c'est-à-dire que ñooñu dafa mel ni kuy dawal am le guidon les yeux rivés sur le guidon duñ gis fu sori économiste moom moo am mën am cette vision panoramique qui yëpp xam tous les secteurs dañ concourir bëri na ay intrants yoo concourir pour nga développement mais économistes en général li ñu conseiller cantonné technique dans les ministères conseil ministre conseil du président mais après ni doxal deug deug dañ lay wax impôt lañ jugee trésor lañ jugee so defoon ndànk sax ay étude de de de de de droit lañ ou de sociologie pour la plupart mais donc loolu noonu war nañ ko corriger aujourd'hui nous avons un ministre de l'économie bo xamante ne def na FMI euh, du lepp la d'accord ak FMI et gis-gisam si économie également uute na ak gis-gis bi nga xamante ne lañ ci doon doxal mais est-ce que ñom biñ ñëwé je crois que euh,

Euh, je crois que les gouvernants ne mënul fexe tamit parce que qui sont dans ci secteur informel dañ ko soxla wax naa léegi euh, li nga xamante épargne nationale parce que Sénégal am na le lum lebi won. Lo xamante et eh, à ce niveau là on n'a pas fait le travail de dëgg bi def parce que dama le ni assurance fay def tamit épargne nationale mais le secteur assurance mais bari na lo xamante projet lañuy am fini au Sénégal war nañ ko mën mën mën mën mën mën mën non pas assuré war nañ ko mën financer so guéné ci assurance mais man gis na en Côte d'Ivoire am na projet autoroutier bo xamante péage bo xamante dañ dem ci euh, armée nga xamante tous les militaires de l'armée sont sont assurés ñu dem gisante ak waa assurance yi ñom ñoo financer projet yoyu noonu. donc pourquoi ñun Sénégal duñ utiliser ces ressources là wax na ressource interne ressource externe externe ci wàllu ressource interne yi nag douane la ak impôt soo ci génnee ñu jël ressources yi nga xamante ne moom la ñu yàlla may jàpp nañ ni deux mille vingt 2024 peut-être wala dès le trimestre à venir enfin le troisième trimestre mën na commencer feeñ ci suñu économie moom mooy li nga xamante ne dañ koy tirer ci pétrole euh, ci gaz bi ak pétrole bi mais nonou euh, également lan naka lañ koy utiliser pour que mu meuna refinancer suñu économie waaw loolu la xalat ni xamna euh dina compliqué pour les hommes politiques parce que dafa am ay urgence yo xam te ne ñoo fi nek bien que digne nañ ñu lu bari économie endogène wax nañ sax ba demoon nañ ba njort ni ñoom dootuñ dem vers FMI wala boog dootuñ lebi mais est-ce que le situation mom mo leni imposer loolu waaw situation bo xamante premier ministre mi ngi koy junj situation bu compliqué la bo xamante tension trésorerie tension budgétaire parce que dafa melni ñaar yoy du ben yoo xamante ne dañ ko wara a dañ ci wara out ay safara d'accord tension euh, ay tension financière en tout cas gis nañ premier ministre d'abord avant mom son ministre ministre des finances on a vu ku mel aussi je pense biram Souleye Diop ñi mel ku ci génn di nga wax lu mel.